ak bani Israil bu fajar jotee nee na Muusa ñaan yàlla mu yeexal fenkook fajar ndax mu mën a noppi ci mbirum Yuusuf nee na yàlla defal ko ko nee na jël ko gi ñu jële woon Yuusuf ci suufu Misra di ko yóbbu moo tax yahood yi ba fii nu toll bi ñuy jël ñi dee ci ñoom ci suuf suñ mën a dee di leen yóbbu ci suufu xut su soos ngir jëf gi ko seen yonente boobu jëfoon muy Muusa jële nañ ci abi Muusa al Ashari mu jële ci baayam mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonente bi sallallahu alayhi dafa mas ci benn arabi yu mooy benn kawkaw kaw kaw-kaw ba ko nee bi sallallahu alayhi wa ni ko ana lo bëgg neena mu ne ko genn gileem rek gu may war ak ku bay wu may rat ne yonente bi salallahu alayhi wa sallama wat laaj ko luy aajom neena mu ne ko oomu ben aajo budul loli mala wax nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam daldi ni magatuk bani israil ga Moga gën a lu ñaan kii dal di nettali xadis boobu yi ñu romb léegi ci xisab yusuf wax nañu moosee ba mu demee ba àgg ci géej gi ji di yëngutu yëngutu bu tar sànni ay duus yu mel ni ay daj duus yu rëy di bëmb yosua ibnu noon ni ko yow yaa kalima allah yow aji waqante yàlla ji ana fon nuy digal ndax fir'aun day aksina na te geej gaa ngi ci sunu kanam ndax fir'aun dafa dal di dajale borom mépp wax ni nañu leen dabi nga dañu gesal fir'aun di leen bëgg dab geej gi nekk ci seen kanam neena bi ko yusuf ibnu nun laaje ni ko ana digal neena yusuf neena musa joxañ geej gi ni ko fii neena yusuf ibnu nun daldi jéggi gi waaju ko sax waaye nag dafay am nabiyu pas-pas bi nekk ci moom ak gëm gim gëm waxi mursal bi pas-pas boobu la doxee ba bi mu ne ana digle mu joxoñ géej gi ni fii rek yoo sax moom dafa dal di jéggi wax nañ ni wewu tànk fasam sax lalu ndox mi nee na mbooloo bi ñëwee ngir bëgg a def loolu Yuusuf ibnu Nun def mënuñ ko Musaa amuk jaaxle xamul nu muy def yàlla wax yu ko ni ko fabal yat wi nga dóor ko ci géej gi mooy anedrib bi asaakal bahra nee na booba jamono boobu ndox maa ngi toll ci dikk dolli ko ci fi géej gi dolli ko daal nga xam ndox mi day bari loolu boobu foofu lañ tolloon nee na Musaa fab yat wi dóor ko ci géej gi géej gi nanguwu koo topp yàlla wax yu géej gi ne ko defalal Moussa lim mu bëgg nee na ba mu dóoraatee weneen yoon nee na géej gi daal di xar géej gi xar ci kàttanug yàlla nee na xaaj bu ne xarit wu rek mel doj bu rëy bi géej gi xaree nag léegi mi daal di tàmbali da nga gis waaye mu dugg ak fasam léegi dara du tooy ci moom nee na fukki yoon ak ñaar feeñ ci géej gi te booba mbooloo mi ànd ak Moussa fukki giir lañu ak ñaar giir gu am yoonu boppam wum jaar ni ko yàlla waxe ci alxuraan ni fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan laa taxaafu darakan wala taxshe ne ko dóoral leen aw yoon ci géej gi mu doon lu wow doo ragal ñu dab la doo ragal euh, dans géej gi Saïd ibnu Jubayr wax na ni Muawiya dafa yónnee ci ibnu Abbas di ko laaj nga xam ni jant bi mosu faa fenk lu dul wenn yoon benn yoon dafa fa jant bi mas a fenk ne na Ibnu Abbas ni ko mooy béréb bi géej gi xaroon ñeel bani Israil ne ko xar googu mu xaraloon bani Israil béréb boobee keroog la fa jant bi ma sa fenk tim ko tabam ci xel a jaaxoon ni ko béréb boobu yi jant bi benn yoon rek la ma mas a fenk kon loolu ci xam-xamu Ibnu Abbas la bokkoon ba euh, lënt yu bare bari moom lañ ko daan laaj mu di ci tontu tont yooyu Euh, kenn du ko mën dindi jële nañ ci abdullah ibnu salaam wax ne Muusa ba mu àggee ci géej gi wax ne yaa man kaana xabla kulli cheyin wal mukawinu li kulli cheyin wal kaa'inu baada kulli cheyin ij'al lana farajan wa maxraja dafa ñaan yàlla bi ci géej gi ni ko yow yàlla mi nekkoon jëkk lu ne te nekkal lu ne te gannaaw bu lépp ñàkkee yaay nekk yàlla na nga nu defal wuññiku njàqare akub génn waay nee na yàlla wax yu ko ni ko ane drib bi asaakal baxra